ne nangu na ndax liggéeyal Serigne Touba moom amul àpp te du doy te dañ koy def ba génn àdduna te lii dafa bokk ci liggéeyal Serigne Touba ak dundal yoonu murit muy dajaloo di jaamu yàlla ñu yar ci nga yar sa njaboot lépp loo xam loo mën loo am dajale lépp jëbal sëñ bi mu jëbal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi mu teg ko ci loxo suñu borom. yàlla nañu yàlla nangul ci barke Serigne Touba ci barke Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul bis bii nag bis yàgg naa rëy bis yàgg naa màgg waaye bis bu màgg bu màggee ci mbooloo bu bari bis bu màggee ci folklore bis mi ngay màggee ci borom kan mooy borom bis bi Bapak, pare waaye ki tax li tax tax ba ku ne di tax taxee moom lañ tuddee bis fii muy soxna jaara bu sa tumbaay islam nag na def ci am rôle bu am solo ñu xam ko ak ñu xam islam bi muy taxaw jigéen def ci bàyyi lu rëy soxna Xadija surtout Mariama ñun ñëpp nañ ko mooy yaay yont yàlla ay sala salamata gis ngeen ko ay sa gis ngeen góor mag bi mu liggéey ci lislaam bon bis bi buñ ko tuddee waay jur wu jigéen wu Serigne Touba ñan ñoo ko ko tuddee daayira bi nga xamante ne nii ay waay jur lañ ay jigéen lañ dajaloo jël seen lépp jëbal ko Serigne Touba tuddee seen bopp daayiratu soxna jaara Bousso jël bis mu toll nii tuddee ko soxna jaara Bousso kii fay toll nii daje si yàlla nañ yàlla defal jàmm nu mu tëddee waaye am na luñ ko ah euh, ni ñu ko tëralee mooy dañ ko tuddee suñu soxna su baax su tedd. Yeah. bokk ndey bokk baay bokk Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul te yàlla dogal na yi dañ ne àdduna ku munta leble na nga mën a fay bor kon ñoom ñii tey mat leen xamal ni daayira bi nga xam ne mooy bi ñu seq ñu soppee Maam fii ci Touba Yarax ñu tuddee ma ci jëwriñ ñi jàppal naa bépp buñ buñ ci bépp ba moo tax keroog bi ñu yëkkatee leetal jox leen ñu bàyyi liñ def lépp ndax ñoom ñii mën nañu la tuddee tout tànk waaye ak mag ay mag tànk lañu kenn ku nekk da ngaa bàyyi ci yor place ko dimanche bu jot Masaalikul Jinaan la ñuy tase di fa durus xasida ñu bokk benn daayira bu ñu tuddee maxa maxaalikul niiraan ak mafaatihul bisri mu am ay daara yu bëri bëri am na sax ay man jaay ci bu nekk ci nga ma dëkk liggéey ci dëkk ba liggéey bu rëy rëy dinaa leen ko wax man ndax bés bi dafa rëy suñu bàyyee seen lépp ñëw fii boo ko ñun bés bi wàcce fi ay xasida yoo xam ne dafa doon suñu xol suñu dee ay góor di ay jullit di ay murit war na leen dee sant bu baax dëgg waaye jëf ju toll ni ku la foroon xam ne ñi amuñu morom mooy dëgg dëgg sa sant sa leen kon te bu dëkkoon ak léegi léegi leer na naa ñu xam nga sëñ Tuubaa moom amul morom ndax ci taaru leen lañu xam ne amul morom xol ma tuut tànk bi dara ko damaa jooj samay xol yàlla xam ne waaye nag baasake baax baax mu ta passé bëgg seetul xati kon nag waa daayira maam jaara maa ngi leen xamal ne xale yu bëgg seen wa barik ala sayyidina wa maulana محمد المامون محمد جمله الإله ببهج لا إله إلا الله Muhammadun jamalul ilah Bibah ila ilaha illallah Husnul ni'atillah Yasudul درجة المختار عند المرسلين بأعتلاء درجات رسلي إن ابن عبد الله فاق كل من أهلاه أو يريه الحال خصما ليس يسب أحد في كوني نبينا أحمد نور الكون من نور أحمد إلى هنا كل منير في انفراء يا فانقلا أحمدنا المختار صلى الله أخنا المختار صلى الله عليه باب أن سوى مولاه محمد ما سقى بفلاح كما ما خير الصلاه بصلاة محمد ما سقى بفلا كما ما خير صلاة بصلاة وجهت لله علي حياتي وجادني بالصف والآيات نبينا خاد إليه الله جمال لا إله إلا الله نبينا خاد إليه هو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كريم تسليم من لا يوجه الضرر على الذي كما يقرر على الذي بحمد فاصرف ولسلامي فسسمي الحق ملك ربي مالك كل يدي حاله وعملي ونيتي ردت بالله وبالرسول من قال والحق وليقتلني ردت بالله وبالرسول من قال والحق وليقتلني sëñ Tuubaa nee na déggal la xaadaha ilayya wa antal muntaha wa samay sama nee na ko ñaari xam-xam yooyu ñu mën a bind ak yi mënta bind Masamba jàngalu ma ko man dem ba jàngalu ma ko yàlla yow mi tànn yonent bi def ko ñu ko def yaa def xam-xam boobu ci man kon ngërëmul yonent bi dajee gaaw waaye nag ku bëgg ngërëmul yàlla ngërëmul yonent bi ngërëmul sëñ Tuubaa yoon bi ci gën a gaaw mooy soxna jaar sëñ Tuubaa moo waxoon ni ku ma liggéeyal yàlla dina la fay yonent bi fay la ma fay la waaye ku liggéeyal soxna jaara yàlla dina la fay yonent bi la ma fay la soxna jaara yi am na koy ngir tàggoo dafa def benn benn xaatim boo xam ni mu sall zul kazali la ci ngeen tàggutoo xaatim boobu bu mu leen wanee ginnaaw da may waxee yéen ko tiim di waxam ni ñu ko waxee mam baara dafa lëmbaay moo amoon waaye wax na ni bi muy ñëw daw na ba lim lëmbaayoo sax tas ngir yàkkamtee bi Seex Umar Fuuti bi mu gisee sox sox soxna euh, sëñ Mor Anta Sali da ko wax wax joo xam ni daa doy waar ndax dani ko ki tax ma ñëw Mbàkke Bawal yaay baayam mooy rab bu mboolem xarnu bi mooy yaram gis naa kawaar yi sax ci mboolem ci saw yaram lépp di lay wuus ngir say gën te yow sa doom ja ak sa mbóoti doom ja moo tax ba xarnu bii amee yile daal ja sa doom ku mel ni moom amul bii daal ku mel ni moom dootu amit suudali moo tax ba ñëpp yi tàbbi fil jinaani sawul fu dee wax dana ko moo tax ba ñëpp yi tàbbi fil jinaani mooy rab bu xarnu bii xanam yi rek daal di yëkkati ab téere bu ñu tuddee Ar-Rimah naa imaam dina ko xam jox ko sëñ moo am sëñ di ko sandoo bi ku ci feeñ jamono laaj téere bii te waxoo ko ko kooku mooy tekkal jamono sëñ Tuubaa sëñ moo feeñ sëñ sëñ sëñ sëñ Mamoor Jaara feeñ na sëñ Touba feeñ jamono ban fàtte téere ma mu laaj bàyyi ne ko ana téere bi ñu ma yóbbante woon te ma jot si ci man bàyyi nit ñi kii mooy borom jamono bi mu gisee soxna jaar dane ko yow de yaay soxna jaar te ku gis xam soxna jaar ko yow yaay yow de yaa di sunu maam jaara yaay ki tax ba ñëpp ami tax ñu am di am ay daara ak di am soxna ki xam ko tegtal na it ki war a xettali jamono sëñ moo am na sëñ ci moom lay feeñ ak soxna Mariama Bousso ñu continuer wéy xoofa mooy sëñ Cheikh Bousso bu ñu tuddee Cheikh Omar Fouti loolu bokk ci wu ba tey sëñ Mbacke Bousso ak bi leen dugg sëñ Bousso bi miy tàmbali soxna Jaara bi ma waxoon ni moo jam soxna Jaara xëy bu dënn moo mel ni ku ñuy wax sëñ Mbacke Fane Bousso. sëñ Mbacke kan bi buso mais ñi soxna moom yi buso soxna moom yi ñu jox ko sëriñ soxna mu am ci sëñ Abdou Samad sëriñ am sëñ Mbacke Jaaribut am ci sëñ Fallu Soxna am ci soxna maam Mareet am ci soxna maam Xëri am ci soxna moom yi kooku sëñ buso bee ko meññ sëñ buso bi moo meññ ku ñuy wax soxna Yaasin buso soxna Yaasin buso ñu jox ko sëñ Afiya rakki maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam mu am ci Serigne Xaasee Mbàkke mi nekkoon gën ginnaaw sëñ Bousso Beye way juróom sëñ Bousso Beye mooy way juróom soxna Aminata Kanti Bousso ñu jox ko sëñ Tuubaa mu am ci sëñ Abdou Khadre ak soxna Maymuna Kubra sëñ Bousso Beye way juróom sëñ Bousso Beye mooy way juróom soxna Anta Bali Bousso sëñ Tuubaa ko yoroon ci waa Barsàq la bokkoon mooy way juróom tamit soxna Awa Bousso mi nga xam ni mooy way juróom Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke ak soxna Mariama Kout بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم لو يريد اليوم ينجاب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم كي باي بي نيك ياب ني وا دايره ني سخنا اي جوتو لين سانتو ام غرمو سخنا اي داي teraanga jure yi ngeen ko defal nii ñu ngi leen di sant bu baax ak famille ba yëpp di sant soxna Kine soxna yëpp rek mën nga li nga leen di sant njëwriñ Njaañ njëwriñ di sant eh, kilifa bi ànd ak yéen ba ngeen kontaan ci moom sëñ di sant ñëpp rek ñëpp mënu ma ko lim léegi nag man liñ ma santoon si liñ ma sant mooy ma fàttali rek fàttali leen liggéey ba nga xam ne yàlla def na lu bañ am kër ca am kër ca Porokhane ñu ni nañ leen ci góorgóorlu ba taxawal fa loo xamante ni bii dinañ ko mën a màggal ko kon nag yokkaat taxawaay bi rek man miy sonne sax man miy soññ sax par man man man lañu war a man sama bopp waaw kon nag gën a góorgóorlu gën a taxaw gën a Siapa rek ci organiser mana ñu mën a def rek ba ba mën faa def loo xam ne ci daal buñ fa ñëwee dinañ ko mën a màggal ni ko war a màggale wax dëgg fa yàlla ndax boo xasee ba am lu jafe foo ko am fa kër yombul fi mu nekk nii soo ko fa bëggoon fu mën a di di sëñ Mor Ñang ak mag ñi xam ñoo doon taxaw yëpp ñu daan ànd ci testas yi ba fi yëpp nekk nii ñoom ñu doon yi mag toog mënatuñoo yëngatu waaye ñu ngi ba tey xale yi mu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax man samay wax yëpp mooy sant ak ñaan rek waaw loolu rek laa fi mën a wax ndax xaw ma leneen lu ma war a mën a wax kon nag wasalaamu aleykum wa rahmatullahi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 mooy ñoom Baye Ibrahima Diouf ñoom Moustapha Wade Serigne Gassama tabarakallah ak ñi ci des di nuyu soxna yi di leen ziar xam naa ni wax ci bu waaye damay jéggulu rek ndax dama fi waroon jëkk ko defee mujje fi waaye ngir nangul ma ngànt rek nga xam ne tey sama calendrier dafa chargé woon ma ji xëy ci suba dama demoon yoof ci benn tudd mooy doomu Pama moom lañ fa doon tuddal bi ma ñibbisee itam suñu mbokk Pël Fuuti yi dañu amoon benn fidaaw ma dem foofu bi ma ci paree demaat Kër Mbay Fall dafa am tàkk bi fa amoon moo tax ma guddee ñëw mais maa ngi jégalu bu baax. su su doon sama sago ma teel fi ñëw mujj fi jóge waaye loolu la yàlla dogal ala kulli xaal bëgg nañu loolu di teew suñu teewaay fii ñuy teewaay fii nag ñu ngi teewal waa jumaa ji yëpp waa diine ji yëpp ñu ngi leen ci gàcce bi ñu ngi leen fi teewal moom dem faal ak ñoom imaam Munir ak ñi ci topp ñëpp fa tabarakallahu amoon nañ yéene ànd ak ñoom ñëpp ñu ñëw ñëwandoon waaye yàlla dogalu ko xam naa ne ñoom ñëwoon nañ sax waaye ñu ñoo mujjee ñëw euh, di sant ñëpp sant sama xarit góor sall ñi nga xam ne moom ngeen tudde woon bokkoon na ci ngeen tudde woon euh, guddi gi walla takkusaan bi fa tabarakallahu di sant ñëpp nag bu jël bañ guddal di sant sant ñëpp di gërëm ñëpp di sàkku ñaan ci yéen di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla may ñu réussir ñu tawfiq li ñu bëgg ci diine ji euh, ci lislaam bi ci tariix yi yàlla may ñu ko ndax ñun amuñu lu dul suñu tariix yi suñu mag ñi rek la am ak fu mu mënti féeti ñun loolu lañu gëm ku gëm leneen nga dem gëni leen gëmi leneen waaye ñun lii dañu gëm lii dañu nàmp lii dañu xam fa tabarakallahu maam borom Touba wax na ci wax yu am solo ci Masaalikul Jinaan mbokkam ma Xaj Malik tontu ko fële ne fa turku kulluha ila rahmani musilatun muslikatun yaa jaani loolu la Xaj Malik wax seen Touba radiyallahu anhu wax ne fa kullu wirdin yuuridu l murida li xadrati llahi walan yahida سواء انتمى إلى الجيلاني أو انتمى لأحمد التجاني فكلهم قطعا على صواب إلى آخر ونجيب باب الورد إذا جهلت شعن الورد فاعلم بأنه أزيم القصد ممكن يغفر لأن بفر شعنه الوحي أو الإلهام يحفظها بأهل السلام من نكوحي waaw in kaana waxyan fa linnabiyi aw kaana ilhaaman fa lil waliyi fa tabarakallah soo fa demee ci bunt yooyu da nga xam ne wax dëgg yàlla borom Tuuba euh, nit yàlla la piir piir piir nit yàlla loo koy loo koy jàmme waaye du ci yàlla tabarakallah kon euh, ñooñu nag suñuy maam lañu suñuy maam lañu ci réew mi lañu dëkk dëkkuñu Gàmbi du Mauritanie du ah, fii la ñu dëkk kon suñu jëf la kon war nañ ci téye bu baax fonk ko bu maa ngi jégalu wax ji mu ngi bëgg gudd di sant ñëpp rek di jégalu ñëpp euh, salaamualeykum wa taala wa barakatuh